moo di déclaration de politique générale mais du ko defee foofee ci assemblée nationale loolu kay tontu na leen nag. ñoom ñoom nga ba léegi Sonko waxul ndax nekk assemblée te ñoom la Sonko war ko waroon na ko wax sax moom. politique la est cokkaas gee waral fi mu toll ñu conformé wu xam nga réglé nañ problème bi ñu ngi koy nii. ñu ngi ci. est-ce lii la bëggoon. mooy li wax rek Sonko moom day politique nekk en avance. wala est-ce que du ñoom ñoo ko bañ a euh, may loolee mu bëgg def waaw am na moo tax mu jaral leen mu waaw moo tax mu jaral leen. peut-être ñu bëgg ñu bëgg accélérer les choses. am na wax nag na ma Sonko opposition bi bëggul mu def déclaration de politique générale. Mhm. waaw ndax daf ciy boolaale état des lieux wu seen gestion. mais loolu Abass wax na ko avant-hier émission point de vue bu RTS 1. Mhm. suivre na ko nee na. Ousmane Sonko buy amal li nga xamante ni moo di déclaration de politique générale am du bokk ak déclaration de politique générale baaxoo gis. Mm-hmm. ndax nee na d' abord Ousmane Sonko dina dikkaat ci li xamante ni moom moo di bilan wu Macky Sall. Mm-hmm. laataa mi nga xamante ni moom lañ dippee seen projet bi tax Sénégalais yi wóoru leen. ba porté leen à la tête de ce mm-hmm. du rejoindre li nga ngi ko doon wax que ni Ousmane Sonko dëgg ci li nga xamante ni moo di déclaration de de politique générale pour ñaari mbir bi ci jiitu bokk na ci déclaration de politique générale ku ne xam na ni dafay jël temps trop groupe parlementaire ku ci nekk am sa temps de parole ak li nga xamante ni moom moo di seen laaj et que peut moom temps boobu du ko pour mun ko ko utiliser est-ce que quelque part bu ñëwee ak boobu du dafa bëgg fàtt trou yi nga xamante ñoom jàpp nañu déjà loolu bokk na ci lu tax mu ragal a ñëw janook député à l'Assemblée nationale. xam nga communication moom wan na leen ne moom moo leen ci mën moo leen dàq maam moo leen gën a pànk communication ragalul loolu. man gëm naa ne mais temps opposition tam may ñu ko dara. waaw waaw loolu moom dëgg la mayuñu ko dara mais man gëm naa ne euh, dana def lu l'une des meilleures déclarations de politique générale bu su ko defee rek dinañ ci waxtaanal comme rek lay def non seulement bis bu beqee man daa xam naa ay looxoor yu fi gars yi bàyyoo xam bis bu ko Sonko tege tegee Sénégalais yi bañ yi. loolu benn point la beneen point bi moo di euh, ñoom aussi ci seen gis-gis jàpp nañu ni. wala bokk am na ñenn ci ay analyste sax yu jàpp ne Ousmane Sonko euh, defagum actuellement déclaration de politique générale lu nga nelam pour deux raisons dafa wax ni eh, ci conférence publique bu noo def moom moo ouvertement que ni projet bi ñu ngi ci dina pare en septembre. Mhm. beneen point bi aussi tamit su fekkee ni moom dafa bëgg def déclaration de politique générale ci jamono yi nga xamante ñi ngi naan war nañ jëm ci ab dissolution et que ñu amuñu majorité à l'Assemblée nationale ndax kon du gën ñu dàq yëf yi comme que wax <coughs> rappelé na ko amul benn dele bu ko tënk heure bu ko soobee mun na ñoo def déclaration de politique général am ndax tamit du gën ci moom tey ji mu toog ba ñu desul li nga xamante ni moo di assemblée mu amal li nga xamante ni moo di déclaration mooy na bàyyi bañ tas assemblée ndax man jàpp naa ne assemblée bi mérité wul déclaration de politique générale nguur gi assemblée bi ñi ko composé nekkatuñu à l'image des sénégalais majorité bu fa nekk ute ak majorité bi mujjee feeñ ci scrutin bi parce que ñi minorité assemblée ñoo majorité ci élection présidentielle yi à cinquante quatre pour cent kon tendance bi soppeeku na donc à de ce moment assemblée bi nekkatul. Euh, à l'image ju peuple bi wute na ko am na décalage. da ngay rejoindre Mimi Touré li bien sûr man je suis d'accord à 100 pour cent loolu maa ko ni ko wax Mimi sax ci benn émission. ki kenn xam naa daf maa plagiat wax naa ne assemblée bi amatul légitimité populaire population bi jóge na entre deux mille vingt deux deux mille vingt quatre population bi changé na. am mais loolu est-ce ci gën am certitude ci échange yi nga xamante ni ci lañ jëm Cheikh bi. waaw buñ ca demee dana leer man de gëm naa ni. nguur gi bu demee assemblée nationale danga am majorité confortable ak li coow li ba dee ni yëpp. waaw dafa mel ni sax loolu la gars yi sentir moo tax ñu bëgg gaawal dugal seen projet de loi boobu xam nga député lañ lépp nag bi leen Macky bëggee tas dañ ko ne dañoo am ay bor. Macky xam nga Diomaye moom du leen fayal seen bor yi Abdoulaye ba mu tasee woon assemblée ba da leen fayaloon seen bor yi. Diomaye du ko def. mais proposition de loi bi bi député yi bëgg du bëgg dugal nag de sa fait Diomaye du amati benn pouvoir pour dissoudre assemblée saa yu ko neexee. bu ko defee askan bee leen di dissoudre askan bi moo leen di dissoudre wut na yàlla yow ñii dañuy fontoo dañuy yow penn yaakaar nga assemblée bi ñun ñu ba mu continuer assemblée bi nga xam ne moo gën a médiocre ci ci législative yi ñu fekkee yëpp kii kenn nañ ko tas rek lu xam. Mm. maanaam lu golo xam bootee ko doomam. alors dañ leen tas rek. lu weesu Abdoul Abdoul Abdoul Abdoul Mbow Abdoulatif moom également joxe na gis-gisam ci li nga xamante ni moom moo di 100 jours yi. Mhm. ñoom daal ñoom ñëpp daal ay critiques la ñu gën mhm. euh, gis nga ko moom également critiqué na li nga xamante ni moom moo di euh, ko jéego yi nga xamante ni régime bi teg na ko ci 100 jours yi euh, ki nga xamante ni également tamit moom moo di le président Bougane gay Dany moom également def na communiqué mayu leen dara dem na sax ba ni Ousmane Sonko ca suuf. la mu ca mujjee bind moo di fen du pexe et jàpp na ni régime bi da leen rek mooy seen point fort mooy traqué li nga xamante ni moom moo di secteur privé bi ci wàllu impôt bon bu dee euh, nu mu tudd Abdou Latif Coulibaly war naa am ker say wax Abdou Latif dafam am lum ñu jaayoon intégrité le peuple d'abord àndul ci lu bëri ndekete yooyaay moom li mu logul woon rek a taxoon mu doon wax bi mu logee dafa noppi Abdou Latif 12 ans yëpp dafa log kenn dégg ko xam nga bi mu logatul nga ko dégg bu logaatee noppi Abdou Latif moom ndekete bu logee noppi bu logul wax waaw gis nga ko xam nga fan yi génnaat na am na beneen waaye itam gis naa ko fan yi moom it mi ngi génnaat borom émission ba ci 2STV xam nga moom it ba mu logee woon waxatul woon. bu ñu logul rek nga leen di. dégg émission bi kan sax. mooy grand boobu rek doon teg nit ñi di leen humilier rek ci 2STV en tout xam nga bi mu logatul mi ngi waxaat ku xola ku ci logul wax ku ci log noppi xam nga fan yi ñu ñi ngi génnaat de la Latif moom ndekete moom bu logee noppi mooy benn ay logeur lañ ay logeur lañ ku ci logatul rek nga dégg ko waaye ku ci log na pat 12 ans Macky Sall lim def ci carnage ci réew bi mosoo ci pipe benn moom boo génnee wax sénégalais am nañ fulla ak fayda duñ la déglu Bougane moom man damaa décidé dootuma ko analyser. dañ koy may bës baal yow Mamy Samb yenn ci waaw Bougane daal ah waaye mais si tu fais l'actualité kay. dañ koy lii la bëgg nag maam faire l'actualité la bëgg. ah am ah, sax temps ñu naan c'est le chef de l'opposition parce que moo gën a yëngatu sax le chef de l'opposition lui-même muy Amadou Ba. xam nga amul gis naa ko amul na def na communiqué sax moom tamit ci immigration bi. xam nga Bougane wax naa ko. dafay symboliser li olof di wax naan ndaw ju xaalis duñ la wax dëgg Bougane Nikor waxuñ ko dëkk Bougane maanaam c'est contraire de li muy wax lépp su amoon nag coach bu baax bu aay mënoon a nekk la chef de l'opposition face au nouveau pouvoir. mais ci tànk yi. mais amul coaching bi maanaam Bougane communication dafa maladroit baaxul su waxee rek nga mere ko. loolay problème Bougane daal li ma jàpp mooy. pourtant c'est un communicant. ah mais feeñoo la ci politique en tant que journaliste war na war a mën a maîtriser l'art de la communication bizarrement journaliste yu bëri bu ñu duggee ci politique gérer wuñ ko baax c'est loolu. ñi daan wax ci presse bi yëpp journaliste bi ñu duggee ci politique. seen koom baax Mamadou Ibra Kane li muy wax tamit. koom baax musiba Pape Djibril Fall musiba. bizarrement les journalistes ku ci dugg ci politique bu waxee nga taf sa gémmiñ. mais Mamadou li muy wax temps yëpp musiba la. Mamadou ay musiba rek la tey naa ko muy félicité Diomaye bi nga. xamante ne Mamadou. CEDEAO réew mi baax rek mais bu dul woon loolu gars yi gars jàpp nañ ko ci affaire général ba parce que Mamadou posom boobu mais loolu loolu loolu ci républicain du ko bind. bizarrement journalistes yu bëri bi ñu duggee ci politique. seen communication musiba la xaw ma nu mu demee noonu la. Mhm. Hmm. Mansour Faye moom <clears throat> dama set du yaaxay wax yoon a koy wax. ñi rey nit ñi sax boo leen laajee ci kanamu yoon dañuy naan man defuma dara waaye enquête yi moom bu déroulé dana ñoom danañ leeral ku def ak ku defut donc ma li ma jàpp mooy Mansour bu dee def naag deful loolu jarul wax na xaar yoon waxal ko ko gaaw a saaga nag yàqamtee xeex la jarut lenn mu di ko yàqamte moom na toog xaar rek léegi yëf yi leer incha allah. Mansour. Mhm. ci coow la mag ak ki nga xamante ni moo di Mimi Touré. loolu suite logique la xam nga Mansour. Mimi de nee na Mansour li mu ko mënta baal mooy ay temps li mu proposé woon à l'assemblée. ni mhm. daal képp ku jege président de la république. war ñu la jox nombal taal baax teg ci ki jox cëru Mimi muy président assemblée. mooy doomi ndeyu ñoom Mansour Faye bi bokkut ak ñoom ndey ak baay. mais Mimi Touré aussi tamit bu fekkee ni yëkkati na euh, yi lépp accusation jëmale ko bu ko Mansour yóbbee ci yoon war na ko war a mën a prouver. waaw Mimi waaw Mimi nee na ko ñëwal tribunal Mimi dawut nee na ko ñëwal tribunal léegi nañ xool ndax Mansour dana def. Mansour nee na bu ko keneen waxee mënees na ko baal waaye lu jógee ci Mimi Touré bi fi nekk commissaire de la justice la. léegi nañu xool suite bi lan lay doon nañu xool ndax Mansour dana dem wala ndax day daw no c'est politique nañ xool la mais moom li muy wax ñeme na loo ci jàpp Mansour day day day day day ruux wala. day dañuy la wax tout cas daal ma doon conseiller ma jege ko dinaa ko ne plainte bi du sa avantage. moom mais aussi tamit. mais stratégiquement. il faut que mu am stratégiquement coow li du intérêt. gis nga ñu bëri ñu nekkoon ci góoru Macky Sall. a ah, intérim la kay parce fi ñu ngi toog di mën a yow di waxtaan ci Mansour Faye te fan yii yëpp dañ ko fàtte. léegi nag lii du ngay def biiru jamono ji. est-ce que jubluwu ci bu fekkee ni dem na ba dossier bi dem fu sore ñu am fu ñu sukkandikuwaat pour wax que ni Kumba am ndey ak Kumba am ba tey mu ngi fi Mimi Touré c'est parce que mu ngi ak ñoom moo tax yëf yi sorewul wala moom mu def ko ngir xam lan la nguur gi yor ci moom ndax jàpp na ni Mimi mi ngi ci nguur gi pour xam fan la nguur gi jëm ak moom ngir mu waaj boppam loolu tam mën na nekk gis nga ñu bëri ci nguur gi ci ancien régime boo leen woowee émission jamono jii duñ ñëw. dëgg la parce que bëgguñu def mbir bëgguñu nit ñi fàttaliku leen Mansour Faye foofu la waroon dugg mais du nante plainte am na contre Mimi dafa saraxe bopp. mais am na ñoo xamante ni nag ñëwuñu ba ñu ñëw parce que dañoo bañ ko leen fàttaliku am na ñoo xamante ni boo leen woowee pour invité dañ lay wax ni la régime bi ngi doog a toog dañ leen bëgg may temps. pour loolu lay observé am na tamit ñu doon xaar li nga xamante ni mooy di déclaration de politique générale li mooy dañ koy layee rek ñu bëri bëgguñu gars yi fàttaliku leen dañ bëgg ñu ñu fàtte leen gars yi doo. Ah, mais mais bu ñu leen fàttee ndax dina baax ci seen carrière ay politi ay. politiciens lañu ñooñu ñooñu politique utuñ de ñooñu fexee reesal li ñu jot a jël moo leen intéressé mais pas politique. dañoo reesal lañ bëgg maam ñu jël lañ bëgg a reesal jamono ji. gars yi dofuñ de ñu bëri ñoom def boo leen woowee plateau yi duñ ñëw duñ jël sax sa appel buñ ko xaamee gis ne journaliste sax plateau duñ jël. Mhm. ci wàllub euh, question écrite yi la ñuy des ba say Cheikh Ousmane Touré Guy Marius Sagna ngi lay wax sànq ni la moom it adressé na waat euh, yeneen i question écrite jagle ko ñi nga xamante ni ñoom ñoo di régime bu yees bi waaye nag dafa met ba fut parce que nee na euh, yi lépp question jagleeloon na leen ko bu yàgg a savoir ki nga xamante ni moom moo di ministère la.